ci bépp seremoni walla boo xam ne jub si na ci lislaam ñu war ko waxtaan ak yéen tey ci tey ñu war a waxtaan ak yéen lu aju ci xew-xew bi nga xam ne moom lañu ñu ne jublu muy li ñu tuddee tabaski ñu war a am njàngat bu ñu def ci tabaski buñ ci jógee wax leen lan mooy àttee tabaski ak lan moo ci charte yi tax mu wér ak yi ci aju mbokk yi li ñuy njëkk a seetlu mooy tebes tabaski li ko waral mooy sunu maam Ibrahim alayhi salaatu wassalaamu moom mooy ñaanoon boromam mu may ko doom gannaaw bi mu amee juróom ñetti fukki at ak juróom benn yàlla may ko doom ju góor bu tudd Ismaayil waaye yàlla jaar na ci nattu ko ci boo xam ndax moom Ibrahim cofeel gi mooy am ci doomam mooy ëpp bi muy am ci boroomam walla déet ndaxit nit nga dund juróom-ñetti fukki at ak lu topp yàlla may la doom ju góor léeg-léeg bu doon ci ñun dinga napp ci doom jooju lool da ko bëgg mbëggeel goo xam ne boo watul mu jéggi dayoo waaye maam Ibrahim yàlla nattu ko ci doom jooju yàlla ne ko rendil doom ji nga xam ne moom laa la may te ma Ismaayil maam Ibrahim amul déngi déngi bu ma am ci digganteem ak boroomam bi ko yàlla waxee loolu mu xam ne lii ci yàlla la jóge ca la yàlla def moom maam Ibrahim mu nangu ndigal bu jóge ci subhaanahu wa taala automatiquement mu ñëw wax ko doom ji te mooy Ismaayil Ismaayil moom it déngi-déngi benn yoon amu ci moom it fa tabaarakallahu mu nangu li nga xam ne mooy ndigal bu jógee ci boroom bi subhaanahu wa taala te mooy li ko yàlla sant mu def ko loolu ñu am ci njàngat buñ ci war a am mooy boroom kër gi nangu na ndigalu boromam waaye doom ji nangu na ndigalu wéyjuram bu jóge ci ndigalu boroomam ki nga xam ne mooy haajara mi jur Ismaayil moom mi nangu na ndigalu boroom këram bu jóge ci ndigalu borom bi subhaanahu wa taala muy ñetti mbir yoo xam ne kenn ku nekk bépp mag moo xam ne nangul nga sa borom subhaanahu wa yàlla dina la defal say doom ñu déggal la waaye bépp jigéen bu nangul borom bi subhaanahu wa yàlla dina la jàppale ba lépp loo xam ne moom nga war a def sa diggante sa boroom kër nga mottali ko ca nam gën a rafete kon bu ko defee loolu ci histoire ci résumé bu gàtt loolu moo waral maam Ismaayil ñu waroon ko rendi ndax yàlla subhaanahu wa bi mu ne Isma bi mu ne Ibrahim rendil sa doom ji mu ñëw ne ko Ibrahim ne Ismaayil yàlla moo ne naa la rendi xam nga la ko doom ji wax xam nga dama wax ni inni ara manaami ani asbahuk mu ne man dama gént di la rendi fansur ma sa tara xoolal lan nga ci gis yow loo ci lu ci sa xalaat ci waxin xool nga ismail lam ca teg daf ko ne yaa abati ifaal ma sa tajiduni inchaa allahu min assabirin waaye baay booy defal li la yàlla sant di nga ma fekk ma bokk ci ñi nga xam ne ñooy muñ kon lii yàlla ba Ismaayil nangoo wayjuram war ko ter rendi ko yàlla xam ne nag Ibrahim mi man la gën a gëm man la gën a sopp ci ne doom ji muy rendi yàlla remplacé ko am xar Seyduna Muhammad bi mu ñëwee nag yàlla def ne loolu na nekk sunna ci diine diine lislaam kon bu ko defee neenu ci résumé bu gàtt loolu rek moo waral tabaski bi tabaski tabaski boobu nag yan àtte la am ci diine dañu xam ne mbokk yi tabaski sunna bu ñu feddili la te kon mooy képp koo xam ne mën nga ko akil xaadiri ina jamhuri fuqaha maanaam sunna suñu dëgër la ci xaq ki nga xam ne moo ko mën ko man ku nekk da xam ne sunna bu dëgër ci yi loolu la ñu wax loolu liñ ciy dégg mooy képp koo xam ne man nga ko di jullit tabaski war na la képp koo xam ne jullit nga man ko rek li fuqaha yi wax mooy war nga tabaski waaye toog rek ni baabaa ngi génn dina mu yóbbaale loolu amul fenn képp ku ko mënul nag l'islam du teg nit du mu mënul loo xam ne mënoo ko l'islam du la forcer ñu ko saratal maanaam ñu ngi ko wax Seyduna ca la rendi ñaari xar yu weex am ñaari béjjén yu mag mu rendi ko ci loxoom ñaari loxoom yu tedd yooyu subhaan eh, eh, eh, salawatullahi wasalaamu alayhi moom nag alquran moo wax ne fa salli li rabbika wanhar inna ataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa al abtar te mooy na julli sa jullim tabaski waaye boo paree ci julli gi nanga nga dem rendi sa gàtt tabaski boobu ñu wax nag kenn mënul koo def ci lu dul mu nekk ci xeetu gàtt yi ñu bëgg a wax benn mu nekk gëlëm walla mu nekk nag walla mu nekk xar walla béy ndax nag alxuraan wax ni li li yazakkaru ismallahi ala ma razaqakum razaqahum min bahimatil an'ami te mooy ngeen fàttaliku seen boroom ci li leen yàlla wërsëgal ci ay li nga xam ne mooy bahima yi nga xam ne moom ngeen war jëfandikoo te mooy li ma wax léegi benn muy nag walla muy euh, gëléem walla muy xar wala muy béy benn bu ci nekk ba ñëwee nag ci fiqul maliki dañu wax ni tabaski xar moo gën boo amul xar nga jël béy boo amul béy nga jël nag boo amul nag nga jël gëlëm kon loolu li muy tekki mooy jullit bi boo naree tabaski dangay wut xar bu góor boo amul bu góor nga jël bu jigéen boo amul bu jigéen nga jël béy bu góor boo amul béy bu góor nga jël béy bu jigéen waaye seetlu leen rek mbokk yi fii ci Sénégal góor bu am kat fitu léegi ci loolu yëpp aadala la nag ndax yow bu fekkee ne fukki junne nga am fukki junne mënula may xarum tabaski mais fukki junne bu fekkee mën nga ci am sikkitu béy mais demal jënd ko tabaski waaye bu fekkee ne nag aada moo la sonnal kon doo dem dangay bàyyi ne ma aw ma tabaski te nag lislaam waxul loolu tabaski moomu nag sart yi nga xam ne mooy tax tabaski bi wér bi ci jiitu mooy ndax dañu wax ne tabaski jaamu la boo xam ne danga koy def pour jege ko sa borom te jaamu yàlla bu mënti doon dafay aaju nit ki am ci yéene bu sell te dafay aju yi tamit pour yàlla nangu ko mu nga aju ca yéene ba kon li nga xam ne moo njëkk ci sart yi pour tabaski bi wér mooy li ñu tuddee yéene te mooy intation bi nga ne lii may fas yéene def maa ci yéene jàmm yàlla kese leneen du ko rax boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy tabaski bi pour mu wér fokk mu ñi nekk ci yii ma la wax te mooy fekk mu nekk benn mu nekk xar walla mu nekk béy walla mu nekk xar walla mu nekk gëlëm lii mooy ñaareelu charte yi tax tabaski bi wér ñetteel bi mooy tabaski bi bu fekkee ne gàtt la na fexe nekk loo xam ne du am benn ayib c'est-à-dire bu mu feebar bu mu ragg ba nga xam ne daanaka rey mu dee reyul mu dee lay doon loolu mooy ñàkk mu am benn ayib kon loolu mooy ñetteelu chart bi pour mu wér na nekk boo xam ne bu mucc la ci ayib te defe naa ne Sénégal moom ku xool xar xam da nga xam xar bu am ayib wala bu amul ayib ñeenteel bi mooy nga rendi ko bésu tëbéski bi wala ñaari bés ya ca topp ndax nag sayyiduna Muhammad wax ne kullu fajaajin muna manhar wa kullu ayami tashriq zabh te mooy bu fekkoon ne moment bi nga xam ne dañuy aji moment bi nit ñi dem ca muna moment yooyu nga xam ne da ngay jóge Arafat wara dem delluwaat mu Muna bés yooyu nga xam ne mooy bésu tabaski bi ak fan yi ñuy sànni jamra yooyu yëpp ci tabaski bi la bokk kon loolu mooy ñeenteelu charte bi mooy kon fokk nga rey ko ci bés boobu waaye tey boo toogoon ba ñu ne tey la Arafat nga rendi sa tabaski amuloo tabaski ndax bés bi ñëwagul kon fokk mu nekk ci fukkeelu fan ba wala fukkeelu baak benn fukkeelu baak ñett ñett yooyu yëpp mën nga faa rey sam xarum tabaski juróomeel bi ci charte yi tax mu wér mooy booy rendi tabaski bi dangay dem julli bu ba noppi doog a ñëw rend sam xarum tabaski ndax seyduna muhammad moo waxoon ne man sala salaatana wa nasaka nuskana faqad asaaba nuska wa man nasaka qabla salaati fa tilka shaat laxmun rawahu buxaari wa muslim yonent bi dafa wax ni képp koo xam ne julli nga ak ñun bi nga julee ba noppi nga dem def li nga xam ne mooy sa devoir te mooy nga def sa sacrifice mu ne kooku def loolu de am nga am nga sacrifice c'est-à-dire am nga jàmm yàlla gi mu ne waaye képp koo xam ne dafa julli dafa rendi avant muy julli nee na loola nga nga xam ne moom nga rendi duñ ko tuddee tëbéski waaye dañ koy tuddee rek yàpp rek am beneen xadis mu wax ne man sabaxa qabla salaati fa innama dabaxa li nafsihi wa man dabaxa baada salaati faqad tamma nusukahu wa asaaba sunnata almuslimin yonent bi dafa wax ni képp koo xam ni danga nga rendi avant ñuy julli mu ne loolu boo ko defee sa bopp nga rendil maanaam yàpp nga ciy jële waaye képp koo xam ne da nga rendi da julli ba noppi gannaaw bi nga jullee ba pare nga dem def li ñuy tuddee sacrifice boobu nga rend sa xar mu ne kooku de ki ko def def na sunna bi nga xam ne moom la julli ñi di def bu ko defee nag ñu ñëw ci bés bi ñu demee julli ba noppi ñu war a rendi nan lañu war a rende ndax ñu bëri dañuy juum wala dañuy def loo xam ne léegi-léegi sharia du ko rafetlu mooy benn kër goo xam ne lu ma juróomi xar juróom benn xar juróom-ñetti xar ci benn kër bu ñu leen di rendi nañu fexe buñ bañ a gisante waaye nga teg xar mi di ko rendi morom bi di ko gis loolu képp bu koy rendi ci ay place yoo xam ne mooy kër yu mag yi nañu moytu loolu beneen bi ci def même paaka bi bul daas paaka bi ci kanam xar mi mu di la gis bu ko defee nag yonent bi dafa waxoon ni yàlla lu nekk lu nekk yàlla def na ca rafetal mu ne dem na ci booy rendi sax na nga fexe rafetal rendi gi rafetal rendi gi nag mooy na nga fexe ba paaka bi nga ñawal ko lool beneen bi ci mooy kii rendi na nekk ku man rendi bu koy def na gaaw ñetti yi war na nekk ci moom na paaka bi ñëw kii rendi na ko man moom it na gaaw ndaxit bu fekkee ne dafay yéex méttit lay doon ci xar mi méttit lay doon ci xar mi kon jullit bi booy rendi rek na fexe ba mu nekk koo xam ne mën na ko bu fekkee ne mën nga rendi mën nga rendil sa bopp su fekkee mënoo ko keneen mën na la rendil waaye foofu ñu leeral ne ndax jigéen mën na rendi xaram walla déet bépp jigéen boo xam ne am nga fitu mën a rendi te mën ko mën nga rendil sa bopp sa sa sa sa xarum tabaski soo ko mënul nag su booba mën nga jël keneen mu rendil la waaye mën nga assister yow mi nga xam ne yaa moom xar mi te mënoo rendi su boobaa nag bu fekkee ne ki lay rendil mën nga ko fay ci sa xaalis waaye doo ne naa kaay rendil ma ma may la ci yàpp wi loolu tamit dañ koy tere maanaam mën nga mën nga jënd xar beneen bu bokkul ak sa tabaski nga may ko ci yàpp woowu waaye yàpp tabaski moom kenn du ci fay nit pour koo xam ne moo la rendil tabaski bi su fekkee ne nag foofa ñëpp ña fa nekk kenn mënu ci rendi jullit bi ña fa nekk kenn mënu ci rendi lislaam bu boobaa dina la may ngi jël keneen koo xam ne ahlul kitaab la mooy nasaraan bi wala yahud bi su boobaa mën na la rendil ndax ñoom seen lekk mën nañ ko lekk loolu tax su boobaa mën na la rendil waaye li gën nag ab jullit rendil boppam moo gën beneen bi ci def mooy yàpp yi tamit duñ ci jaay dara te dañ wax ne yàpp tëbaski na ko xaaj ñetti xaaj xaaj bii na ko lekk bii na nga ko saraxe beneen bi nga denc ko kon may nañ la nga lekk ci denc ci saraxe ci ñett yooyu yëpp mën na nekk ci bésu tebeski bi kon mën nañu wax ne daal bu ñu doon résumé lii mooy tabaski jaamu yàlla la nag jullit nag lépp loo def rëcc ko rek xamal ne du li lislaam lu mu la sant ndax mbokk yi li man ci jëmoon nañu xam ne tabaski bi mën nañu wax ne ñetti fan bu fekkee ne yow ci ñiy julli aju war nga boo demee julli ji ba ñëw rend sa tabaski rek jeex bu fekkee ne nag tiitaru moo tax nga dem dugg ci loo mënul julli ba pare rek sa xel ñu ko moytu xoolal yàlla lépp lu teg yàlla xam ne ne mën ndax bu fekkoon ne farata la kon sonn waaye du farata sunna ñun nag danga gis koo xam ne dina sonn lool ci ay sunna waaye farata nee la koy teg mbokk yi nañu xam ne tabaski sunna bu ñu feddili la yàlla am lum ci jàngale ci diggante sunu maam Ibrahim ak Ismaayil doom ja ak soxnaam Haajara nga xam ne ñett ñoo ñooy samp benc mi mooy diggante góor gi ak ak doomam ak soxnaam maam Ibrahim nangul na boroomam maam Ismaayil nangul na waajuram ci ndigalu boroomam waaye Haajar nangul na boroom këram ci ndigalu jëkk borom këram ndigalu yàlla subhaanahu wa taala kon loolu buñ ko yoon jàng ndaxit liñ ci mën a jàng ñun ndaw ñi nañu seetlu jamono jii képp koo xam ne sa waajur da la woowoon ne na yàlla moo ne naa la rendi ba watul la nga cee wax mooy pa góor gi dafa naax wala nga sàkk pexe waaye Ibrahim bi mu ko waxee Ismaayil tegu ci baat daf ko wax ne sama papa defal li la li la yàlla sant sa tajuni insha allahu min asabirin kon bu ko defee daal loolu rek la ñu waxoon ne nañ ko indi ci ci wàllu waxtaan bu ko defee ñu yemale ko foofu di ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla ñu ci yàlla yow ak jàmm yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko yàlla na yàlla def képp ko amul xar yàlla na la yàlla baaxe nga am xar waaye képp ku ko am itamit na nga ko def te yàlla rek tax waaye ndax lépp loo def rek tiitaroo ko rek yàlla génn na ci ndax nag wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisina looy def na jaamu nga sell te nga tuddee ko yàlla yàlla ci yàlla yóbbu jàmm ñaanaale yàlla fan yi nga xam ne mooy suñu digg lépp ñaan yàlla ñu ko yàlla nangul waaye ñaan yàlla subhanahu wa taala feebar bii nga xam ne yàlla ñu yàlla jéggee wa dalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullah